حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومهوى الظلمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله موضوع الخطبة اليوم ما حقيقة الدنيا من خلال القرآن الكريم فالله عز وجل يصف الحياة الدنيا بأنها ذات عمر قصير ومتاء قليل قال جل وعلا في محكم التنزيل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة إخواني في الله الدنيا لا شيء أمام الآخرة بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi nuy xamal ni adduna bi nu nekk amul valeur amul njëriñ amul importance lu dul ku fi taxawee jaamu yàlla looloo tax nit waru fi bew waru fi jàdd waru fi def loo xam ne ëllëg ak si biir bu taxawee ci kanamu boroomam du am lay te tey adduna bi soppeeku na soppeeku goo xam ne kenn xamatul lan mooy dëgg nit ñi jël nañ dëgg def ko caaxaan jël dëgg def ko ay fen jël caaxaan ak banditisme ak criminalité def ko dëgg su nit reyee nit kenn du wax kañ la ñuy wax bu ñu reyee ki rey xam ngeen ne semaine bi nu nekk am na xew-xew bu xew ci gox yi mooy ay criminel ay reykatu nit ñu rey leen ay nit jóg di wax di kaas bi ñu reyee ñooñu lu tax O- ONDS droit de l'homme rado lu tax jóguñu woon bi ndaw si tàngalee diwlin ba mu tàng bàyyi jëkkër ji di noppaliku mu sotti ko ko mu ñor boobu ana waa droit de l'homme ban l'homme américains yi dañuy rey kenn du wax ana waa droit de l'homme Chine dañuy rey ñoo dàq rey ci àddina bi ana droit de l'homme Arabie Saoudite dañuy rey ana droit de l'homme parce que ku amul doole moo rey sunu borom subhanahu wa taala di nu xamal àdduna loolu mooy tax dund bi normal walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab laallakum tattaqun suñ ko defee rek lé léegi nit ñi normal lan moo tax tey ci Sénégal koo waxal mu daw jël arme toj butel génn paaka jël tournevis gàddu jaasi lu tax parce que ku rey nit kenn du la def dara au contraire dañ lay tëj di la duufal ngay entraîné di yëkkati ay poids ñu lay faj boo feebaree te doo fay ngay lekk te doo jënd benn plat doo fay électricité doo fay ndox doo fay dara boo feebaree gratuitement ñu lay faj booy wér di génn xam nga lay wax sama place moo fi fekk kenn maa ngi ñëwaat boo egsee koñ bi nga reya woon nit da ngay daasaat jaas yi ñu naan génn na nit ñi daw koo song mu teg bagage am nga jël su ripostee nga rey wala nga jam baa nga dagg ñu jalaat la delloo nga nekkaat fa génnaat ci lislaam nag kaso amul laa sujuuna fil islaam islaam mooy état boo xam ne dëkk boo xam ne amul kaso lislaam ku def rek dañ lay indi ci penc mi li nga def ñu def la nga dem ñibbi parce que kaso ci lislaam pen lay yokk budget lay yokk am am bu kenn xamul bu ñuy dépassé lay yokk fi mu nekk nii li ñu denc ay bandi ci àddina bi buñ leen rayoon ñun ñu nekk ci jàmm billahi allazi la ilaha illa huwa ñu ñu waroon rey ci àddina bi buñ leen setaloon kon ñépp nekk ci jàmm yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latif alxabir yàlla moo xam yàlla moo xam ne kii baaxul ci société bi foog ñu jële ko fi xoolal ku toll ci degré bàyyi nit mu tëdd di nelaw nga tàngal diwlin imagine leen diwlin laa wax de suñ la ko sottee mu sedd sax fi nga bëggoon dem dootoo dem foog nga delluwaat ñibbi defaru ci waxuma laa ñu sotti la bu tàng kan moo la ko sotti ki la kiñ la waxoon ne ki yàlla waxoon ne wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma ki yàlla waxoon ne yéen ñaar ñi wa min ayatihi wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja limaza ya rab limaza lan la yàlla tont tont man maa ko def mu ne li taskunu ilayha ki la waroon dalal ki la waroon sang ki la waroon sang ki la waroon muur ki la waroon dalal li taskunu ilayha ngir ngeen am ci moom dal wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma kooku moo mujj tey loolu rek moo fi am tàngal ndox tàngal dëwlin sotti acide euh, xooj gana yooyu rek moo fi am lu tax gàddu jaasi góor ñaa ngi gàddu jaasi diggéen ñi tàngal ndox ak dëwlin limaasa parce que ragalunu dara après ay avocat ñooy ñëw laaj yi la au lieu ñu rey la ñu daal lay tëj deux ans trois ans nga génnaat nekk ci mbedd mi di lambar lambar yi ñaata nit ñoo fi rey nit tey di lekk di dundandoo ak ñun ñaata kenn koo xam dañ koy jugé mu rey démb dañuy waxtaane programme bi amaana mbokk boobu mu ngi ci biir jumaa ji mu ne benn waay boo xam ne seen koñ day rey rek di rey rek di rey rek rey ba pare jaale si nag ñëw ci baas bi fekk ñëpp toog mu taxaw naan maa ko rey waaw lu tax parce que ñii reykatu nit yi la ñuy aar mais kenn aarul ñu ñu rey loolu mooy loi lay lay laïcité ci kaw suuf kiri ñi ñuy rey kenn du leen aar dañ lay fekk sa biir kër guddi nga tëdd di nelaw ñu daj mbaa ñu tëb nga intervenir ñu rey la après yow mi nu rey jeex na dañ lem suuli ji la rek yow amoo ñu lay kaasal ana waa droit de l'homme ci loolu ku nu fekk këram guddi ñu rey ko dégg ngeen semaine bi passé waa jiy dox ndeysaan ànd ak jabar ji di doxantu reer ba pare kaa ñu doxantu fan la mujje mi ngi àllaaxira ana ñi ko rey rey ko ba pare di dem jabar ji naan leen kaay leen bu leen ma fi bàyyi rey leen ñu ñun ñaar ci kanamu jabaram ci kanamu njabootam loolu moo tax mbokk yi borom bi di ñu jàjj ci alquran pour ñu bañ a bew pour ñu xam ne adduna amul valeur bu nu fi nekkee tamit di défendre ay caaxaan di défendre loi yoo xam ne du dara ci kanamu yàlla ëllëg sunu borom subhanahu wa taala danay taxaw amul avocat amul juge amul kenn kuy taxaw ëllëg ci kanamu yàlla ne da ngay sol rob yawma yaqulu lizalim uskut wa yaqulu lilmazlumi takallam bis bi yàlla di wax ki doon tooñ noppil kiñ doon tooñ taqaddam wa takallam avancel waxal lu sa projet mu ne yàlla jëlal sama àq ci waa ji tuuroon sama deret lan la yàlla di wax kereyoon safara jahannama xaalidina fiha abad loolu dañ ko war a xalaat looloo tax sunu borom di ñu jàjj di ñu wax ne wa yawma taqumu saa yuqsimu almujrimun ma labithu gayra saa allahu akbar bis bu ñu dekkee bis bu malaaka taxawee ci ufuqu sama naan ee yéen yax yu fanax yi kawar yu tasaaroo yi yàpp yu ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga tëddoon sa biir bàmmeel nga jóg taxaw parce que tey ki woote moom ñëppay dégg te ku dégg di nga wuyu yawma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan ka annahum ila nusubin yuufiduun xaasiatan absaaruhum tarhaquhum zilla yëppay génn ku dégg woote bi rek da nga daan bërët ne man ba asana min marqadina haza ñu nekkoon ci dëgg xamoon dëgg gi ne haza ma waada arrahman wa sadaqa almursalun lii mooy bisu dëgg bi lii la yàlla dige woon te mooy dëgg yonent yi yàlla yónni woon doon avertir nit ñi ci bis bi bisu dëgg la waxoon nañ dëgg ñoom yonent yooyu sunu borom ne bu nu walee buftu bi ba ñëpp dekk criminels yi reykatu nit yi ñi yàq àdduna ak ñi leen di défendre yuqsimu almujrimun ma labisu gayra saa gayra saa saa ku def ci àdduna juróom-ñaar fukki at ñu dekki la ci biir bàmmeel nee la kam labistum qaalu labisnaa yawman aw baada yawm ak kon àdduna amul valeur moo tax yonent bi ne bu àdduna amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa nekk ci keppaaru garab ginnaaw ba mu doxee ba sonn mu jël ay dàllam njaganaayoo wala lenn nee nañ Omar daf ko ziyaare si ñu fekk mu ngi tëgg ci basang bu wow koŋŋ basang bu wow sallallahu alayhi wa sallam bi Omar nee tëll yonent jóg di ko nuyu Omar seen faari yonent bi mu ngi dereetal ndax basang bi mu tëddoon dafa wow Omar ne ko yonent doo bàyyi ma wax jullit yi ku nekk indi mbàjj këram ñu lalal la ko wala sijaada wala mat la ndax mu nooy yonent bi ne Omar maali wali dunya maali wali dunya ma ana illa ka raakibin istazalla tahta sajara summa qaama fa tarakaha maa ngi mel ne benn waay bu doon dox ba sonn toog ci keppaaru garab di noppalu bi ma toogee ba noppalu damaa jóg daal di fay bàyyi garab bi noonu laa mel ci àdduna kon àdduna amul importance wallahi allazi la ilaha illa huwa addunya zaatu umrin qasir wa mataun qalil idan ayaqilu an tudhiya bil abadi min ajali l umri l qasir muf'imun bil mata'ib adduna mbokk yi ku fi dund loo dund loo dund même boo amoon junni at buñ la dugalee bàmmeel nga xam ne defoo fi dara waaye bànneexu gi dafa néew qalil fi nga toogee léegi di lekk yàpp 30 minutes buñ la ko yokkalee nga ni baax na bu doon looy naan la buñ yokkee nga ni baax na bu doon looy sol la buñ yokkee nga ni baax na bu doon waruwaay la loo ci yàgg yàgg yàgg bu ga- bu yàggee nga commencé énervé xanaa du ñu yegg fi ñu jëm kon ana àdduna loo fi bànneexu rek lu tuuti la lu tuuti lu tuuti moom nga fi bànneexu kon naka la fi nit bànneexu bu ndaw boobu naka la nit di fi bewee di fi jayee ko ba fii yenu ay bàkkaar yoo xam ne boo duggee ci biir bàmmeel rëccu te wallahi bàkkaar ku dugg ak moom bàmmeel am problème yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ihtazza al ars ala mawti saad arsu rahman dafa yëngatu dafa jaayu malaaka yi ne yàlla loolan la mu ne leen saad ibnu wa abi waqaas moo faatu ñu dugal ko biir bàmmeel bàmmeel tànc ko te ars yëngatu na ci ay ay deewam lu tax yonent bi ne dafa yóbbaale bàmmeel biir ci biir bàmmeel bàkkaar boo xam ne mu ngi ko jële lenn moom ak njabootam te arsh yëngatu ci faatoom kon bàkkaar ku fa yóbbaale bàmmeel am problème boo fa yóbbaalee ay deret nag deret rey nit boo fa yóbbaalee aar ay reykatu nit dëkk bi dafa soppeeku dafa mel ne caaxaan léegi moom mooy dëkk balaa ngay dégg ñuy wax rek ñu ne dóor nañ góor jigéen nga gis ay nit jóg di défendre ku rey nit ñu ne nañ ko rey gars yi di défendre saa yoo déggee doomu aadama yi di wax rek mooy dëgg moo jóg waaye caaxaan kenn du wax bu ñu reyee nit kenn du wax bu ay góor jigéen latee ci dëkk bi kenn du wax léegi ana dëgg ay naa féq kese ñoo fees ci kaw suuf tey jël dëggu yàlla gi bu koo soppeeku ñun ñi nga xam ne loolu amul suñu réew xool leen kenn ñëmatul doxantu jàkka jaa ngi ni barki démb rek dañ julli ba pare benn waaye bu ay dàll yóbbu ma tagul juróomi fan chaque jour loolu la ana dëgg suñu borom ne qul mataau dunya qalil gis ngeen mataau dunya yàlla mu ne qalil adduna bànneex yi fi am yàlla nee na lu tuuti la par rapport ak alaxira ndax alaxira du jeex kon naka lay xeloo nga jël luy jeex gënal ko ci lu dul jeex addunya daaru lahu wa laib wa zina wa tafaaxur yaqulu jalla wa ala ilamu ilamu annama al xayaatu dunya laibun wa lahun wa zina déclaration la yàlla wax ilamu xam leen yëg leen yàlla mooy joxe déclaration lan la yàlla di wax ci suratul hadid aya 20 mu ne na ngeen yëg ne dund àdduna fo kese la laib fo la wallahi fo la gis ngeen noonu àdduna di taw bi di towee xale yi génn ci suuf si di tabax suuf si defar ay kër léeg-léeg nga gis ku jël këyit takk drapeau ci benn bant samp ci kër gi ñu defar defar nga gis mu defar garage oto defar defar defar waaye bu naaj bi tàngee ba xale yooyu ñu woo leen añ seen kër yooyu ñu tabaxoon fan lay mujj ci toj loolu mooy àdduna loolu leen yàlla wax lii ñuy def nii yëpp wallahi bis a ngi ñëw yàlla subhaanahu wa taala daal di koy mokkal ba mu mokk yàlla taxañ asamaan taxañ suuf taal géej daal di jàkkaarloog àdduna ne ko yaa dunya ayna qusuuriki ana sato yi yaa dunya ayna jibaaluki ana montagne yi yaa dunya ayna abnaauki ana say doom ayna aljabaabira ana bandi yi limanil mulkul yawm kan mooy buur laa mujiba illa allah kenn du tontu ku dul yàlla sunu borom subhanahu wa taala ne asamaan ak suuf dama koy wañ lem tee ko ci sama ndeyjoor kon yàlla kenn waru koo yeb sunu benn mag day wax ne tukulóor yi nee nañ allah sohulaaka jola allah sohulaaka jola yàlla buñ ko ragalul rek da koo neex wallahi ban yi fan yi rek xam nañ ci dara yàlla daraam xejul ci ñun xoolal ndox mi benn boroom xam-xam dafa ànd ak ay ay nit ñu dem ba ci digg àll bi asamaan bi xiin commencé dënu ndox mi commencé wàcc mu ne leen haza min asaari rahmatillah fa kayfa iza ghadiba dënu yi ngeen di gis ndox mi ngeen di gis yërmande la kon yàlla su meree nu mu war a mel lii ñuy gis ni yërmande la kon yàlla bu meroon nan la war a mel bu yàlla yabaloon géej ni mu defoon qawmu nuux mu daal di wàcce ndox ci kaw asamaan mu wa- génne ndox ci bar ci biir suuf ba ndox mi fantaqal maau ala amrin qad qudir kon fu ñu jëm kon yàlla mooy dëkk mbokk yi àdduna fola caaxaan la taar taarlu rëy rëylu ngand ngandlu fëgg dënn fekk yooyu yëpp dara amu ci importance sunu borom ne ngeen di bëri lante alal ku nekk ci yéen jaay moroomam maana loolu rek moom moo nekk ci àdduna haza kalaamu rabbul alamin kala kalaamu xaaliqil akwaan lii waxu yàlla la yàlla moo nañu ne àdduna laib wa lahu wa ziina wa tafaaxur baynakum wa takaasurun bil amwali wal awlaad lii rek moo fi nekk fo caaxaan jaay taar ëppalante alal ak ay doom loolu rek moo nekk ci àdduna ci loolu la ñuy nekk nag ba ëllëg yàlla subhaanahu wa taala ne nu nuus dugar biir bàmmeel fan ngay mujj ana alal bi ayna maaluk ana sa alal ayna awlaaduk ana say doom nga dugg biir bàmmeel malaaka yi taxaw naan lan ngay indaale yow ndeke àdduna ba nga fay génn yóbbaale wuloo dara mbokk yi kon bu nu àdduna jay adduniyaa daaru xuruur àdduna kër guy waraate la yàlla nee na fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxaruur bu leen àdduna jay bu leen àdduna wor ku nekk xoolal fa nga dëkk xoolal say dëkkaale xoolal koñ bi nga dëkk ña sosoon koñ ba ñépp a nga àllaaxira suñu doful xam ne ñun ñoo ciy topp boroom xam-xam bu mag bi Sufyaanu Sawri nee na ki perte mooy ki yóbbu mbokkam ñëwaat di fo saa yoo yóbbee nit armée bi war ngaa xam ne yaa ciy topp saa yoo déggee nit faatu na soo doful war na xam ne yaa ciy topp aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر yassara allahu alayhi fi dunya wal axira wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal axira wallahu fi awni al abd ma kaana al abdu fi awni axihi mbokk yi semaine passée ginnaaw bu ngeen xamante ne sunu borom subhanahu wa taala wàcce na ndoxam xam ngeen ne ndox moomu am na ñu mu nekk nattu ci ñoom génne leen seeni dëkkuwaay yàqal leen seen dund ak seen alal te jullit amul lu dul mbokk jullitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku dundil jullit jafe-jafe benn jafe-jafe ci jafe-jafe adduna yàlla subhanahu wa taala dina la dindil jafe-jafe àllaaxira yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ku sang jullit yàlla dina la sang adduna sang la àllaaxira benn waay dafay nekk ci sukuraat ñu dekki-jekki dégg mu ne yaa layta kaana baida mu jékki-jékki waat daan ne yaa layta kaana baida mu jékki-jékki daan ne yaa layta kaana kaamila ñi ko waroon ne ko waaw sa ñetti yaa layta yi lu ko waral mu ne benn bis dafa am sama benn mbokk benn mbokk julit bu doon wër benn mbokkam mu ñëw sama kër mu laaj ma ndax xam naa waa ji mu ne ma jóg daal di sol sama daal daal di jàpp ci loxo bi ubbi sama buntu kër ndeke ñaari kër yi ñoo sosoo mu fëgg buntu kër googu ñoo ñu ubbi mu daal di dugg ak waa ji ba ci ku muy laaj mu ne ko waajaa ngi nii bi mu nekkee ci sukuraat mu gis benn château buñ ko taxawal yàlla ne ko yaa moom lii parce que yow yaa dimbali woon sa mbokku jullit boobu nga dox ci say tànk sa tànk yi poussière ci yoonu yàlla nga dem dimbali waa ji pour mu gis mbokku jullitam boobu mu doon seet mu ne aka neexoon muy mu sori yaa layta kaana baida aka neexoon mu sori ndax mu dox lu baree bari waaye xoolal diggante ñaari kër yu sës tey bu doon kenn si ñun danaa naan kër googu la waaye waa ji dafa jóg parce que xam na lan moo ci nekk pour am tiyaab mu jàpp ci loxo waa ji ñëw ne ko mu ngi nii kii la kii nga doon seet mu ngi nii ndeke loolu mu dox lu tuuti loolu ci distance boobu loolu la ko yàlla fay benn sato ci biir aljanna ñu ne waaw yaa layta kaana jadida bi nag aka neexoon muy lu bees mu ne dafa am dama gisoon ku amul lu mu sol ma jàpp ci loxo bu yóbbu ko ba sama kër ma xool ci yére yi nga xam ne moom laa yoroon bu gën a baax fekk yére boobu dafa yàgg sax yàgg na mokk na waaye moo ci tane ma daal di koy jël jox ko waa ji ñu won ma benn kër ci biir aljanna bu fees dell ak ay yére ñu ne loolu lañ ma fay mu ne aka neexoon muy lu bees yaa layta kaana jadida ñu ne ko waaw yaa layta kaana kaamila mu ne benn benn waay bu xiif laa gisoon ma jël daggitu mburu bu ma waroon jëfandikoo daal di koy jox sunu borom subhaanahu wa taala daan may fay benn magasin ci biir aljanna bu fees dell ak mburu ma ne aka neexoon muy kilo yaa layta kaana kaamila kon tey fii nu toll nii ci réew mi ci ay nit toll ci ay jafe-jafe ay jullit ak ñu mu mën a doon dina jaadu ginnaaw ba ilimaan yi waxee ne tey xutba jumaa bi nañ ko def ci ndimbalante incha allah doomu ndey bu nu paree julli kenn ku nekk ci ñun lépp lu nekk sa poos wala boo mu nee daw ñëwaat ci yére lu nu lekk lu nu suturlaa pour ñu jàppale ko sunu mbokk jullit yi nga xam ne tey ñoo ngi ci ay tolof tolof sunu borom subhanahu wa taala moo yónni yonent yonent moo ñu ne wallahu fi awni l abd maa kaana al abdu fi awni axii jàmm bi yàlla nga koy dimbali feek mu ngi taxaw di dimbali ay mbokk jullitam kon incha allah doomu ndey bu nu paree julli kenn ku nekk ci ñun lépp loo indaale woon ci mun ko fee bàyyi ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala bàyyee ko mbokk yi ñu seet yan mbokki jullit yi ñoo ñu sës parce que lu nekk ñu sës al aqrabu awla hatta bu doon xeex borom bi subhanahu wa taala nee na wa qatilu alladina yalunakum min al kuffaari même bu doon xeex sax yéeféer yi ñu dendal la ñuy njëkk a xeexal kon bu dee ndimbalit mbokk jullit yi ñu gën a jege nekk ci tolof tolof ñoom ñoo aajowoo loolu yal na yàlla subhanahu wa taala def nu ci ñun dégg ak topp allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi allahuma ya musabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ñu góorgóorlu mbokk yi ci sàppe yi fatt diggante yi tollale sàppe yi ci kaw ak ci suuf ñu fay portable yi ba ñu pare julli allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم منها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله